tey jii nag lu waral sunu mbébét moom mooy ba ñu toogee ba bëgg a organiser benn point de presse parce que ñu ngi doon réclamer 16 mois d'arriérés de motivation ak pratiquement 2 mois de salaire fii ci sant Talibou Dabo dañoo gis ne directeur bi le lendemain de la fête euh, de Korité mu organiser du ñu ne point de presse sax mais benn public reportage la def mu ne drapeau national bi dañ ko désacralisé maanaam drapeau national euh, buy sunu symbole réew dañ ko caxat caxate ñun nag lu ñu si gën a jaaxal ba mu demee ba au niveau du commissariat euh, de Grand Yoff directeur bañ ko laajee ndax yow am nga preuve ne drapeau bi dañ ko caxat-caxate moom dafa ne fekkewu ko gestionnaire am moom moo photo wax ko tey jii nii bu ñu gisee ka nga xam ne nee nga fekkewoo euh, événement yooyu euh, naka nga mun a waxee ne drapeau bi dañ ko caxat-caxate ñu jàpp ne affaire boobu accusation la bu graaw non seulement ñun dañuy préparer déposer benn plainte tey au niveau euh, du procureur ak commissariat bu Grand Yoff mais aussi il faut que autorités yi tamit autorité judiciaire yi ñu autosaisir réew pour que affaire boobu leer gis nañ ne aussi depuis jamono yu njëkk yi ba léegi centre bi ñu ngi xool ne ay lëndëm lëndëm rek ñoo dox ci biir centre bi ñii ñu ngi naan affaire pavage rajo baa ngi fii euh, presque deux ans mënul fexe ba dox ay oto ya nga xam ne jaay nañ ko fii euh, feeraay tey ji nii ñun jàpp nañ ne directeur euh, ci boppam bu demee ba wooñu di tenter du ñu corrompre xamal nañu ñun moom mënatul yor centre Talibou bo dafa war a bàyyi ka nga xam ne mënoo boo woowee say employé nga ne leen mënatuma gérer centre bi bu dee yow patriote nga di wax ay affaire drapeau loo njëkkoon war def moom mooy euh, nga démissionné ci centre Talibou Dabo mais taxul ne nga naan yow APR nga bokkoon kenn mënulu loolu dara tey jii ñu ngi ñaan autorité yi yu bees yi centre Talibou Dabo il faut ñu ériger ko en établissement public de santé non hospitalier pour que ñu mun a xam fii lan moo fiy dugg ak lan moo fiy génn tey ñu ngi ñaanaat autorités yi avant dara di xew nañu ñëw auditer euh, centre Talibou Dabo dossier lépp lu ñu amoon lu ñu doon wax te lépp lu ñu ciy wax ñu ngi ci ak ay kéet yu leer tey jii nii yeneen dossier yëpp jox nañ ko euh, ministère euh, de la santé et de l'action sociale moom mooy ñu fi nekkoon tey jii nii nag ñu ñaan leen dossier Talibou Dabo nañ ko transmettre ministère ministre bu bees bu ñëw pour que ñoom ñu mun a ñëw gëstu lu xew si centre Talibou Dabo tey ji nii nee nañ dugal nañ fi 20 millions 20 millions yooyu pour fay boru talibu Dabo depuis 14 novembre ba léegi 20 millions yooyu xamuñu fan la tekk ba léegi eggul ci keesu centre Talibou Dabo bëgg nañu xam 20 millions yi fan la ñu nekk donc daal lu ñuy ñaan moom mooy centre bi li fi xew na leer na leer kon loolu la bëgg ci biir centre Talibou Dabo léegi si sa kàddu sànq nga directeur bi daf leen woo pour corrompre leen. loolu loolu naka la demee pour nga expliquer ñu mu clair. mais mënuñu woo réunion nañu euh, nañu dañoo bëgg a trouver une solution ba pare mu ñuy proposer nañu ñun euh, les euh, onze agents ya nga xam ne ñu ngi nekkoon ci biir bureau bi mu ne daf ñuy jox ku nekk vingt cinq mille francs ñun ñu noppi ñu ne ko loolu mënuñu ko def bu nu ñi di xeex guerre ñun jàpp nañ ne directeur warul ñëw di xool ay agents am naan da leen di jéem a guerre ñu trouvé nañ ko loolu c'est anormal ba foto ñu taf ko ci tableau bi moo taxit porte mën nañ ko plainte au niveau euh, du commissariat de Grand Yoff il faut que affaire boobu mu wax ñu lu waral mu photo agent yooyu ci biir bureau léegi dama am beneen question bi may laaj maanaam wàllum pavage bi ngay wax noonu pour nga expliquer ñu tuuti ñu comprendre naka la demee. waaw mais ministre Abdoulaye Diouf Sarr moom moo ko joxoon cinquante millions ne vingt cinq millions yi nañ ko jox euh, pour fay boru. Euh, agent yi nekk si tali bu Dabo yeneen vingt cinq millions yi pour pavage la mais ñun à notre grande surprise vingt cinq millions pavage yooyu gis nañ ne ku tudd Omar Lo moom moo ñu jox pavé centre bi yëpp donc mënuñu comprendre ne kenn ñëw ñu jox la vingt cinq millions pour pavé nit ñëw may la vingt cinq millions il faut que nag nga wax ñu vingt cinq millions yooyu fan la dugg loolu nag euh, bëgg nañ mu leer.